jox Yunus kàddu gi wax naa ko léegi kenn ku ci nekk ka nga yabal moo di yow Baye Samba production ñoo ngi may wax ni mi ngi nee taxaw ci ginnaaw mais nee na rek dafa ñëwoon tout suma pour wane ni nga xamante ni ñoom ñooy ay mbërëm ni mi seen ginnaaw mais mi ngi leen di ñaanal di leen sant bu baax a baax kontaan ci yéen muy Bouba Diakhao que muy fils de Samba Diaw Younous pour gagner di temps ah ñu jox la rek euh, yow tamit nga sànni say kàddu ci li nga xamante ni moom la xale amal nii asalaamualeykum Assalamu alaikum wa wa Assalamu alaikum yen wa Merveille TV ñu ngi rafetlu jotaay bi ñun nak dañu nek ay ndaw yi nga xamné le président Habib Niang mo ñu yónni ñu aussi parce que bonne nee Bouba c'est un nom mythique bu né Bouba Diakhao moy

le président Habib Niang ne ñu yéen ndaw ñëpp ñi nga xam ne dama leen jiite di nuyu sama homologue muy le président euh, de la cellule de jaxaw muy Souleymane Gueye et de féliciter aussi toute la cellule de jaxaw di leen wax ni président Habib Niang tàyyiwul si daray jaxaw lépp lu ngeen ko woo rek dina leen si fekk suba ba ngoon lii nag day loo xamante ne nii c'est très normal su waa jaxaaw wootee faw Habib ñaa moo fay njëkk et di leen wax loo xamante ne nii du t rek la leen di toppee du kaar wala leneen li leen di toppee ci kanam la di li ci kanam raw li bët ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne ñooy bëri ñu indi victoire bu sedd guy indi ko fii feete ko ànd ak le président Habib ñaa ñu yëngal. Habib Niang moo ngi nii taxaw ci sama wet buuba jaxaw dañ lay jox rek li nga xam ne moom mooy kaddu gi nga yëkkat ci say kaddu. jëmale ko ci fans yi ak ñi nga xamante ni ñooy supporters yi waaye jëmale ko ci Habib Niang mi nga xam ne tey moom moo taxaw ni ci sawet wet Bouba jaxaw vous avez la parole. onze bila bismillah inna wal yàlla jërëjëfati Serigne Touba jërëjëfati Serigne Khadim Gueye Lo borom daam jërëjëfati Serigne Khadim daam gannaaw ma sant yàlla julli Seydina Muhammad di sant samay ñaari waajur di ñaan yàlla ñu bàyyil mak fi ñu dundu 111 ans sans ordinance ma ngi santat nak monsieur Habib Niang bu baakha baakha baakha baakha baax ma ngi sante monsieur Habib Niang bu baakha baakha baax gis nga tiset yi ni ni ngeen gis maynama la wax plus de 300 cent tiset ko defé man non la ko defé sama yeen morom mbeuri jëndal ma 5 bologu billet mayma 5 car man japp naa képp ku la dig ndékki jàpp naa ni képp ku la jox añ bis bu la digee reer jàpp naa yow doo fande maa ngi santaat Habib Niang bu wër maire zone nord bii nag muy xëccoo bu ko neexee mën na dem tëddi nalaw barki Serigne Touba ndax ñun mbëri rek ñun rek bu ñu voté gëm na ni moom dina jël maire zone nord bi ci katanu yalla seen borom damay wowat way jaxaw di len nan ben leader lañ fi am muy abib nya ñun ñep nañ jël suñu carte yi daal di ko koy votel ken kuñ ko fi votel ñoo ngi nax suñu bop nañu votel monsieur abibnya nya di waxtaan xama sama fans club bi wa Santos ñep ma ngi len di gëreum seen taxaway open press bi bi meen ko xé ba tay danaka nalawatuñu di sante wa jaxaw yop nak ma nga sante dal ñepp ñuy jappale rek buuba jaxaw diko bege ma nga len di sante bu baaxa baaxa baax di ñaanal tay sama adversaire suñ borom may ko wër ak wérle may ko ko may mako ko ci carton yalla suñ borom ma daan ko jël bu set wécc wa damay wax sama supporter. yi danaka open press bi jeexagul di len wax tay président bi ñaa jënd na Lolai lay waxat jënd na billet yëpp stade bi dinañ ko fessal bu mu fess del ci carton yalla ci barke Serigne Khadim Gueye Lo borom da ay Samba ñambe ñambe tay jaxaw yëngu na gis naa fi lo xamni ni ko gis ci lamb ndaanaan yëpp yëngu ñu du set yëngu fils de Samba jaw yëngu Mamour champion yëngu tay du fi nga xamni mom moy jaxaw li ma fi gës gëj naa ko gis mañ alaaj Moustapha Ndiaye numéro 2 ndaanoonu jaxaw yëpp dugg tuus gaa yi yëngal fëgg seen dóor seen i loxo fëgg seen deret nga xam ni tey ji lamb moom moo xewle buuba jaxaw nga ne lan ma tëj ko ñu ñibbi waaw damay santaat sama sama maa ngi santaat sama coach yëpp ku si mel ni champion barki alxuraanu karim combat bi lu nekk daj nañ ko billaay wallaay gis nga champion day borom xol bu yaatoo yaatu billaay maa ngi sant champion di sant père Babacar di sant du set sunu ménageur di sant mama Diaw sunu mooy sunu mag ikiri santaat pe babakar bu wer di sant na suñu kot champion ken amul fayam barki alquran ken di sant wa Santos sama mafia bi gis ngeen boy sama mafia bu ndaw ni gis ngeen ni ñëpp di ngeen gis stade ci katon yalla suñu borom man maa wax ci katon yalla day am ndam ci katon yalla suñu borom ala juus yow tay ñong lay sant di ñaal tay sen tele bi mu raw si tele yu nekk nak si Afrique nak lay wax Afrique yalla na sen tele bi raw ci katon yalla suñu borom ci barke Serigne Touba jërë ngeen jëf booy booy may leen